Pipana moom mi ngi woy Chéri Boy mu nekk tendance di toj euh, li nga xamante ni mooy TikTok bi Pape Samba ñu dem xooli ko ñëwaat. Pipana. sëpp mooy woy booy bu bari liggéent yi dugg na ci musique booy bu am talent booy bu bari pexe booy bu. bari ñeme ruq. bari non. il est très très macha allah oh. nuyu la bàyyi li nga nuyu ak téléspectateurs yi ngay seetaan. maa leen di nuyu yéen ñëpp ñu nekk ci plateau bi jaajëf di nuyu ñëpp ñuy seetaan di nuyu sama papa di nuyu sama yaay di bëggee ñëpp yaa mais Pipana comment ça se fait que bi gën a fës man Pipana bi mi toog je m'attendais je me suis dit la wala du moom <laughs> est bi mi ngi TikTok man bu ma yeewoo fu ne laa koy. la nga naan ay est bi rafet na muslim waay. day luxus mais naka la demee. waay. il est un kii c'est un non c'est un magicien alors ñu bàyyi la nga nuyoo. yeah yeah maa ngi di bëggee maa ngi bëggee di kontaan si invitation bi voilà c'est ça. ba baal ma bàyyi leen kon ñu jël caméra yi ëlbatil leen ko foofu kon ngeen émission ah waaw waaw bu dee da ngeen ko def kay. aci bi ah. <laughs> li Samira wax léegi tout à l'heure euh, son bi dafa def dafa def dafa def tabac foo tourné gis ko ci réseaux sociaux yi euh, liggéey la woon boo def depuis depuis depuis depuis kañ kañ nga ci nekkoon est-ce prévu pour génne ko mu nekk tube waaw son bi dama ko liggéey dama ko liggéey son bi est-ce que duréwul genre liggéey naa ko si trois mois si trois mois si trois mois genre d'habitude studio damay dem job benn son à deux heures de temps mais son bi nii dama si jël sama temps liggéey jour du may ñëw def benn affaire gars si son bi doo jàll si ñeneen mais damay ñëw def benn affaire ñu ne ma nice na nii mais man ma bañ ne noonu bit bi Freezy Freezy moo ko defar Freezy mooy kii guitare euh, Babacar Ngom gaba mooy vrai nom kii guitare Youssou Ndour donc yee moo ko job en fait à la base sax son bi il a failli ne pas exister ndax dama soxla woon benn bit à la man ay kii laa doon def ay rap français yow abaa xam nga si dara mm-hmm. loolu laa doon def mm-hmm. léegi nag man il faut ma def benn affaire bu sénégalais. différent tout yee ma message booy bi ne ko genre dama gis ni genre vidéo yi lay defar ma ne ko bëgg naa comme genre yi mu tëgg yónnee ma ma déglu mais filuma ko woon déglu après nag deux semaines trois semaines plus tard ma yeewu benn grasse matinée di defar sama ndékki may jël sama téléphone di déglu pour dégg ma tombé si beat bi léegi refrain bi dugg si. léegi nag après noonu laa ko bindee dem studio job ko tu vois noonu laa ko defee nànk nànk ba mu mën. doo bëgg xale bu am jàpp quoi. wala booy bi wala c'est mu bàkk pare quoi amu ci yeneen amu <laughs> ci yeneen vibes. jëm saa jëm saa. mais nga job son bi ci 3 mois. si 3 mois promotion def nañ promotion 3 mois aussi. gars yi dañoo foog ni laa jékki-jékki rek tax mais depuis 7 ans mu commencé nañ def challenge depuis 7 ans. mais c' est c' est en novembre je pense si la affaire yi am ampleur. mais tey ça te fait quoi TikTok gis YouTube bi xale yi di TikTok ça te fait quoi exactement. kontaan et puis foofu yi dox ah. la ñuy xamee li liggéey bi mooy fay au fait. dama si son. bi bi ngay yéeg sa vélo. <laughs> ah bu def machine. waaw waaw man la lu mu créé ñëw indil ne ma grand xoolal c'est bien c'est bien c'est bien en tout cas tu fais ma fierté quand même liggéey liggéey mooy fay lan mooy projet yi après après après sortie au single waaw waaw instant yi nag hmm, dañuy promotion bi ba ci kanam. janvier prévoir nañ génnee affaire. instant je préfère faire des singles nànk nànk ba imposer. après nag ba gars yi miin xam sama mut après nag. talent yi mën naa ko génnee. <laughs> loolu luxu sëg la yooyu. et <laughs> gis naa ne Momo mi ngi sa ginnaaw te Momo guerrier la. yaa macha allah Marozik Marozik aussi. Momo ak Marozik. ñoom lan mooy le message bi ngay bàyyi si ci gars yi je sais ni son bi tube lay nekk ci décembre bi. amiin euh, amiin c'est quoi le message que. waaw di di wax gars yi ñu gën si jàpp gën a partagé ni ngay ni gën ma booster xam ni mm-hmm. xale bu ndaw laa damay soog a door waaw loolu la peace. le meilleur reste à macha allah ay ca kontaan ci moom bu baax euh, balaa ñu tëj